vraiment pour man tànk yi ma indi fii tey ci 7TV mënutoon na ñàkk euh, mënutoon na ñàkk ngir ñaar ba ñetti yëf bu njëkk bi mooy soxna Maimouna Ndour fa jigéen la ni ñun ensuite euh, ci wàllu liggéeyam la ko lii dale donc yooyu euh, tax na ñetteel bi aussi mooy ñun ci suñu wàllu aada li ñu baaxantal di def mooy ku am naqar ku am bànneex nga dem mais ku am naqar moom loolu obligation la nga ñëw kon tey ñëw fii damay bëgg jëmmaal rek ne dëgg la doonte moom moom la ñu gaañ moom la ñu song mais man jàpp naa ne groupe 7 TV bi yëpp lañ song ndax dafa bokk ak yéen liggéey bi ngeen nekk aussi pàcc bu am solo ci réew mi kon vraiment maa ngi leen di massawu yéen ñëpp di ko ñaanal sunu borom yëkkati ko ci jàmm ak salaam mu dellu si njabootam surtout di gën a ñaax état bi pour que vraiment euh, lii yëpp ñu gën a mën a encadrer ndax euh, état li ñuy xaar ci moom mooy mu sàmm nit ñi sàmm seen alal sàmm yenn jumtuwaay yi